ginnaaw bi conseil constitutionnel li nga xamante ne moo di décision am ak njeextalu processus bi ba tax kii di njiiti réew mi gannaaw ba ñoo amee li nga xamante ne moo di conseil des ministres bi mu ñaax kii di ministre de ak di ministre ak waa Sénat ñi nga xamante ne ñoo di autorité administrative yi ñu def seen ay kattan ba amal li nga xamante ne moo di élection yi. ba tey kii di njiiti réew mi mu ngi xam ne li nga xamante ne moo di élection présidentielle yi dinañ ko amal. ci date boo xamante ne du yàgg dara gannaaw ay consultation ak ñi nga xamante ne ñoo di acteurs politiques yi waa société civile ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu wooyee les forces vives de la nation te kii di président Macky Sall mu ngi rappelé ne moom mooy gardien de la constitution ak garant de l'état de droit moom daal mu ngi lancé un appel ñi nga xamante ne ñoo di forces vives de la nation pour ñu gën a mën a li nga xamante ne moo di suñu démocratie ak ñu gën a mën a li nga xamante ne moo di suñu institution ak lii di processus électoral réew tey mu ngi fàttali ni ci conseil des ministres bi mu ngi réaffirmer li nga xamante ne moo di engagement am pour ñu amal benn processus boo xamante ne ñëpp ci bokk gannaaw ay concertation wala dialogue pour ñu mën a am benn consensus pour juboo mën a am ci acteurs yi pour lii di espace politique bi économique wala social mën a am jàmm